قد ناصمت روضته إلا الخيام عصمت رضي أني صفته جيلاني عليه رجوان الذي أخلاني رضي أني شفته جيلاني عليه رجوان الذي أخلاني رضي أني صفته جيلاني عليه رجوان سفوتو جيراني الله رجوان الذي أغلاني ردياني سفوتو أبو الحسن الله رجوان يخلد الحسن ردياني سفوتو تيجاني الله رجوان الذي أعلاني رضي عني شفته تيجاني عليه رضوان مبيد الجانب رضي عني الخلفاء الأربعة خصوصور المقربين المتبع من لم يكن أني يرضى فالكريم رضا أني رضا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جزاه كما تقبل وغدا عن جزاء صلاة من كرمه يرماني على الذي منبر صلاة من كرمه يرماني على الذي دون مراغاني سان إلهي بالمنادي أبدا أغنى يدي أنغاد suñu dignité commencé waaye yooyu yëpp xool liggéey liggéeyu seen tubaab bi lu ma nuyu bëgguma ko lu ma nuyu bëgguma ko ku ma gis may demee yaakaar jàmm en plus ba demee woo waaye bëgguma ko gis liggéey seen tubaab bi ma nga soxna jëmm Fall ni woon xas daa tax ñu bind la bi waxee ba léegi dama see gën a positif te saat daa ma gën a ñaanal bu baax a baax gëm naa ne soo ma ñaanalee fépp fu ma bëgg a àgg naa fa yëg muy tubaab bu baax te jékki Mbacke Balla moo ngi la siyaar di jox sa wàccuwaay ci kàttanug Cheikh Mamadou Fadilu sa maam ja Serigne moo doo ngi nii le presse de Serigne Abdoul Karim Mbacke Fadilu faj kàccu aajo baa ngi nii Serigne ak nit Badara at mu jot nga miin ma ci fii fii mën mu fee ñàkk bañ a dem xat lool waaye sëriñ Modou naan yokk mar la sëriñ Modou balu teng si bi borom baati na nii bi Covid bi soog a commencé danoo dem Seras sëriñ Modou sëriñ Karim waroo faa teew murit mbay ñi sëriñ Modou mooy sama xarit moom laa ko yebal yaakaar naan sëñ naa Aline Korok yaa nga sëriñ Modou li ñuy tàggoo ni kon bu déwénee day gën a neex day gën a wér te ñoo koy ànd si waat waa jama àndaloon naan yi dañu ay daanukat ma ne ko yow fi ne dama lay daw ba déwén ndax waxi sëñ Moodu ji ñëwet bis ñëwaat ma jaar këram ko sa bis ba ñëwaat na safar ji mu ne ma damaa tawat ma ne ko bu ma dem ci sëriñ Moodu mu dimbali yow sinon yow bàq ya nga jëm daan ñëw fii naan la Mbàkke leen rek laa bëgg muy di feeñ ci télé di liggéey sa maam waxatuma télé waaye ay télé lañu àndal di liggéey sëñ Touba sëriñ Modou yow ki la tuddee daa doy waar mooy sëriñ Modou Moussa Falilou sëriñ Falilou daa may gani naar soxla cinq cent mille francs mënu ko mu tëju mënta génn ni nu may def ak sama sërif yu tedd yi jóge day man benn bëkk nekk daw ci sëñ fallu nu ko sëñ moodu boo yaboo tey kenn du siyaar sëñ fallu ndax téeméer junne la bëgg a teral ganam yi sëñ Fallou yëg ko dem Aliya moom sëñ Modou jaay fas jaay lépp andil ko muy téeméer junni sëñ Fallou génnee ree ñëpp yi siyaar mu ne damaa bëgg lu waral ngeen xam sama muñ Moodu mii daa weexal sama bët yi bis ni ki tey ay bëtam dootul xonk yow bañ la tuddee la sëriñ Karim ni seen Moodoo ngi nii ku mënta jot ci sëriñ Moodu mënoo jot ci sëriñ Abdul Karim gisal sëriñ Moodu yow nu màggal nañ ko santee sa maam ja sëriñ moo ko woote de 45 ni bis nañ ko def see ci borom sa ji sëñ Falilou moo ne woon maay Sénégal fekk yéen a ngi may gis yéen ngi gis Serigne Touba waaye bu ngeen ma noppee gis gisatu leen Serigne Touba doomi Serigne Touba ngeen di gis. sa maam ji ànd ak Serigne di dox ba njàgg Serigne Moussa Ka ne cey sëñ Touba sa maam ji sëñ Falilou bëgg sëñ tubaa moom turu sëñ tubaa di ko muñ mu teg ne ko Moussa Ka mu ne ko Mbàkke mu ne ko est-ce xam nga nu ma demee kooku mu ne ko day sa baay nga jur njuleel ga jëndee ko taalibe mu ne ko kaay ma leeral la. sëriñ tubaa daa yenn ndamam jëm ci àlla man fàllu ma topp ko te yuguma ba mu ko yeggee sunu borom defal ko mu yenu ma teg sama ndab sunu borom defal ma ma yenu ndab li sëriñ tubaa yenu maa ñëpp ko bokk waaye man sama ndabal bopp maa ko moom muy na am du am fàllu gaas tubaa njaareen eh sëriñ Moodu tekki na weer yi jàkkaaroog mbooloo mi na ñëpp jóg taxaw saraxoole mbàkke sëriñ Moodu mbàkke bale kenn du yow mbàkke sa bët yii bëtu yërmaande la sa la mbàkke man maa bari na sëriñ su mag ñu leen di tuddi sëñ Fallu ak sëriñ Karim bu ko ju jotee ñu diir daaju ñuy tëjog yow nga faj aajo ji Mbàkke sa maam ja Baye Mbay Ndaw sama maam moo ne koon Mbàkke ñi lay tuddee doom daa bari ku la tuddee doom teraanga war na ko yooyu jamono sërub dënk daa seer mu ne ko Mbay Ndaw loolu day tuuti waay nga ji gën a bari laay def ku ma tuddee doom nday jàpp baay ja maam ja ma taat ba leen àjjana ngir dara jay Fallu waa ji bëkk nekk bu mel ni man léeg-léeg gars yi dañuy xaw a aay sëñ Fallou ni ko yeewul mbaam mi jox waa ji mu dem waa ji xool mbaam mi bari doole lool mu ñëw ni sëñ Fallou mbaam ma dugg na ci àll bi daa doxe sëñ Fallou ni ko ubbil ma bunt bii ma jàkkaarloo ñu ubbi buntu bi naaru góor wi egg ca kaw jébbu benn tànk sëñ Fallou ni ko yeewul naaru góor wi jox waa ji wëraat ñëwaat. ni ko mbàkke mbaam ma doxi ñëw na sëñ Fallou ni ko booleel mbaam mi ak fas wi jox waa ji mu dem koo koy samaam di sëñ Fallou allahu dul fadli adim kum jox ngeneel déet na layeen fadlu mooy fadlu adim turam yi doy na xarnu bi moo namp ñaani meeni gor mbàkke ngu soobe kenn dootu ko jar bamba ñëwaat ci xarnu bi wallu ndeyam di wàllu yaari maamam ndeyam di baayam baayam ay ndijaayam xalifa day boo ngu soobe ñoom ay shérif lañ foo ko nan doroobe xalifa day jubóog borom mi doole xaqi xatoog lay boole néegi ñaxi dem nan taaxi kaw yi ñëw nan léegi sax dañuy njëñ ay ganaar di reere sa maam ja 45 moo ni ràgg mottu ràmm mottu kollu dadd juba muul dira diri falu gas tubaa njaare mooy ñaar fukki at ak ñeent moom la fi sëñ fallu toog naar ba daa andi góom ñëw jàkkaarloog sëñ fallu joxoñ ko góom bi jërëjëf dugaloon ma ko ci poos bi ah soxna si li mu def baax naa soxna si nañ ko toppandoo ku yaakaar sëñ Moodu ñëwal jox ma àddiyee ndax sëñ Moodu moom billet bu mag la ma daan jox bu ma pare te xam naa billet baa ci poche bi soxna sii nu mu def ku toog ak Serigne ñuy waxtaan ci maamam da ngaa war sa poche joxe ndax Mbàkke kenn du moom. sa maam ji Serigne Falilou waaye nag dama leen bëgg a wax ci bàyyi kii jamono koy wër Serigne Abdoul Karim Mbàkke hasa Karim du Karim fa ismuhu Abdou Karim wala tamatan almaru yaa Karim fasukumu yaa Karim Cheikh Karim daayiratul makaarim axlaaqi mooy sumu daayira bilaa Cheikh Aaxi Cheikh moom verte rek lay bul lay génne mbaa moof Mbàkke man damaa ragal sëriñ bu ñaaw damaa mës a toog ci benn saalu sëriñ bëgg a dem Kaolack naan su ma fi amee junni dana baax may yeeweeku sëriñ bi jox ma bu xonk bi korog sama fit wi rës na waaye mbake verte mbaa moof Mbàkke yàlla nañ fi yàgg téwér sa maam ja sëriñ Fallu ah Mbàkke sa waajur yi sëñ Fallu fay na ko tey dama tiim baas sama yaram wi daw ma ne xoolal sëñ Karim ñi ko mag ci kër sëñ Tubaa waaye mbooloo mi nekkal xalifa général boo fi jógee fenn nga koy gisaat muy kër sëñ Abdul Karim ak ah moo defal ndaw ñi Mbàkke géej waaye doon na waar Mbàkke moo tubloo band yi def leen ay laxasaay te jii ñuy tagal seeni waajur di yëkkatu ci kaddu laa ilaaha illallaah waaye sëriñ moodu nag daa am lu ma dal ci yow ginax dañ ni ko dañoo bëgg nga wax ñu kanam kanamu muus mu ne kanamu muus du ma leen ko mën a wax ñaari fa ñuy daje dañuy xam Serigne Modou moom baatinam dafa jege bu toogee wax ci maamam lépp saf lépp lépp saafara damaa toog Mali di waxtaan ci sëñ Fallou benn malien ni ma ndax xam nga doomi sëñ Abdul Karim di naan sëriñ Moodu ma ni ko ah kooku sama xarit la kooku ñemewuma dugg Touba te dew ma ci moom mu faj samay aajo mu ne damaa toog ci moom di ñaan yàlla dem dëkk bu ñuy wax jaamaan waaye ba ma ñaanee loolu damaa ñibbi si dem ambassadeur Mali ñu ne ma ne boobu ba léegi ñu ngi bëgg say dossier nee na korog lañ ma tàmpeel ma dem mbàkke bale ay fajkatu aada yi dem naa ci cant goo xamante ni tali bees la rajo yee jékki-jékki rek di karang-karang kenn mënu a dégg gars yi piis bouton bu ñu bës sëñ Modou ni def leen nii na ma borom rajo yi xool ñu xool ko rajo yi ni teg rajo yi ni teg leeraat loolu mën naa ko fekke tali bees damaa bëgg nag ku sopp sëriñ Modou xoolal sa morom mu xool la nga jox ko loxo ni ko baal ma àq ngeen baalante àq kenn bañ a ree nag te ñu muñ muñ gu sew ndax bi su mbégte la ñu ne kenn war te jàkkaar ak muñ ne kenn ku ne jox sa loxo moroom ñu baalante àq mbàkke yàlla na nga fi yegg yàlla na ngi wér yàlla na nga am jàmm damaa dem caaro géej di waxtaan benn dof ñëw ak bagage yu bari ñëw toog ci wetu soxna yi séddale laax waxtaan wa xaw a yàgg nag imaam bi ne eh yéen soxna yéen lay waxal wàññi leen seen cool yi balaa laax bee yàq waxtaan bi dof bi ne ko imaam dangaa jum waxtaan wi lañu war a gàttal bala moo yàq laax bi mbàkke yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga fi wér mbàkke ñu ànd ak télévision bu mag bii di Ngalan bi di sunu télé bopp fi mu ne partout dans le monde ñu ngi seetaan ñu bëgg a ñëw nag ñaan la nga jël ay kàddu ci sa bisub maam bii ndax moo ne woon koo xamante ni sa mbég sama mbég la bu bisu jotee nag ma ci santale sama borom ginaal bëgg leen mbàkke sa maam yàlla fay na ko de illaa yaqaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mulki ni loolu yàlla wane na ko makkatal mukarama fa lañ yaakaar dèjà yi tëj na rab ñu ne coronavirus wóorul madinatul munawara tëj na rab ñu ne coronavirus wóorul sëriñ tubaa sa maam nee na àjjana dootuñu fa julli dootuñu fa woor lenn rek am àjjana ñu ne ko lan mu ne àjjana bisub 18 safar bu jotee yàlla day yeesalaat parfum ya yeesalaat ko bende yi waa àjjana naan lañ moo xew ñu naan leen bisub Serigne tubaa ci àdduna moo ñëwaat xarajtu yow ma saqi saamina atar li xidmati muxtaar fii sadi safar Serigne Touba ne yàlla xamante ni ku fa teew tàbbi àjjana kuñ fa siiw nga ñubbi àjjana fii daw si ñu ne ko ban dëkk la mu ne Touba li abdin muridin sadiqin loomu bi xidmati aw bi hubin aw hadiyaati mbàkke yàgg fii ñi fi nekk tey fas ñi bëgg tukki ak ñi bëgg a dem feneen ak feneen yàlla nañ bokk ci milliardaire suñ Touba yi te amuñu borom kër ak ñi ko am suñu borom jàppale leen boobu déwénee ñu am ay Baay Faal yu baax waaye ñi bëgg ñaareel nag yàlla na seen ñaan gën a gaaw ndax seen Modou daaw jéeg ba ren maa ngi wër maa ngi wër ñaareel waaye nag ren moom fasub ñaareel laay fas damaa bëgg bu déwénee ma ànd ak moom màggal si jërëjëf Mbacke Balla yàgg fi téwér asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mboolem jëwriñ ni fi daje yëpp ci tuuru jëwriñ Maamun mi nga xam ne mooy jëwriñu sëñ Modou te yàlla dogal yaramam xaw a jagadi moo tax teewut màggal gi waaye xam naa fa mu nekk xelam ak xelaatam ak bëgg-bëggam yëpp mu ngi ci fi ci màggal gi waaye ñoo ñaan ci barkeeb sëñ Fallu ak weeru màggal gi yàlla na ko yàlla mooy wér siyaar Omar Diop ak jëwriñ Pambay ak mboolem soxna yi fi daje yëpp Euh, mu mel ni kàddu yi day gàttu rek ndax sëñ bi daay bënt ay kàddu mu jëm ci mboolem site internet yi fi daje yëpp télévision yi ak rajo yi fi daje te teew fi ngir jëmmam ji toog ak jëm Cheikh Abdou Karim Mbacké mu sëñ Fallu nee na ay kàddoom du bëri ndax nit ki fekkee dañ laa yilif say kàddu mënul ñàkk nay kàddu yu am fulla tam fayda te yem ca sëkk na lay doy moom sëriñam mooy si Abdou Karim Mbàkke te kenn ku ne xam na sëñ Abdou ci yar ak teggin ak fonk ay kilifaam ci wax wax ju rafet yoo xam ne ni ku ko dégg man koo jëriñoo mu jëm ci ndaw ñi ak mag mu bëgg lu baax yéen site yi internet di fi daje nag yëpp sëriñ bi nee na mu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla ndax at mu jot muy màggal kasoro Rajab ak màggal Touba ak yeneen bis yi nga xam ne day mel ni nii tey dajale ay jullit nee na fu ngeen nekk dangeen teew ci moom déglu ay kàddoom sàkku ci moom ñaanam waaye ne lam doon ñaan daaw di ko ñaan daaw jekk lay ñaan ren mooy li ngeen yéenee ci seen liggéey bi yéen a ko xam yàlla nañ la ko sunu borom defal te defal leen ci lu kawe seen jot sëriñ tamit nee na na ngeen ci góorgóorlu te jaamoo ko yàlla ndax sit internet wàllu télévision ak wàllu rajo nee na kàddu bu ci mënta dem na doon kàddu yu rafet yoo xam ne ni des na ko mën a jëriñoo te ne tamit ku bëgg li ngay liggéeyal yàlla barkeel doo def koo jug dépp ko sa micro ndax léegi jamono juñ toll mboolem kilifa diine yi lu waaye jëfandikoo ñu koy gis Sëñ Muntaxa ñu ngi suivre télévision yi actualité xam na lu xew Cheikh Abdou Karim Mbacke noonu aussi ak keneen koo xam ne mel na ni ñoom nee na kon ñi ngeen dëpp seen caméra yi di ko dëpp seen micro yi ñu jël ay kaddu ngeen góorgóorlu ba kàddu yu fay bàyyi ko doon lépp mën a jariñu neen na bu ko defee fu ngeen dem rek boo liggéey dem faren bu déwee ni dinañ yàkkamte ngeen ñëwaat waaye bëri na site internet yoo xam ne nii ña ñuy dëpp seen waxukaay yi duñ wax lu yàlla gërëm dañu ko def safaanoo ak kilifa yi ay kàddu loolu taxut ñuy ibbi kaddu yooyu nee na lii yaakaar naa dafa war a nëbb su dafa war a am sutura ci jaam yàlla yi waaye du bërëb bu ñuy weerantee du bërëb bu ñuy waxantee lu ñaaw nee na yii bërëb la yoo xam ne nii pour feeñal jaamu yàlla yi ñu mel ni ñoom nga xam dañoo ne ci ruq di jaamu yàlla di yar ay doomu aadama tàggal leen teg leen ci yoonu ma mustaqim te leen war a xam seen doom yebal ko ci ñoom ah kuy kuy sëriñ bi kana ñu ne kii doomu sëriñ Abdou Karim Mbàkke la xaaral mu jël sama doom yóbbu ko xamuñu kii am na ci jamono nee na site yi loolu moo ko war a tax a waaye du n'importe quel doomu aadama rek ngeen dëpp ko seen waxukaay sim ne na ngeen ci góorgóorlu loolu baax baax ne nag ni ngeen tàmbalee am na solo rafet na yàlla ngeen ko wéyal noonu li topp sëriñ bi nee na kàddu yi sëriñ Abdou Karim mooy kàddoom mooy mboolem kuy ndaw nga góor góorlu ci jaamu yàlla góor góorgóorlu ci fonk say waajur respecté leen jox leen cër bi am ci yow nee na bu kenn juyoo ak waajuram ci xelaat muy ndaw ñi ko wër ak ñiy dégg wax kaay ki nee na ku bëgg lu baax du juyoo ak waajuram ci xelaat sëriñ bi ne loo bëgg-bëgg lu baax lu sa xel rafet rafet rafet sa xol sa xel waajur war na laa mën a day doy nee na ku ci sa wajur tere na bàyyi lam la tere ku ci sa wajur digal nanga def lam la digal nee nañu ñu nangoo liggéey nee na ndaw bu jàngul day liggéey fonk sa métier jox ak jamu moom mooy tax boo ëllëgee loo ci sàkku su defal la ko ci sëriñ ne na ndaw luy jàng nga fonk sa jàng bu dee alxuraan la nga fonk ko jox ko la mu moom bu dee nasaraan la nga fonk ko jox ko la la mu moom ndax ko fi dégg tey ñi xaar ci ma allahuma daa jël alluwaam teg ko ci lupp poojam koo fi dégg tey ñu ne ko président wala député wala monsieur le maire wala monsieur le ministre toog na ci ban yi lekkool li ay at doogu dégg loolee nee na bëggu dara ñaaw ci ndaw kon ndaw lu na sàkk lu rafet jëm ci ñoom te góor góorlu te rafetal bañ a dëgër bopp te bañ def lu xew ngeen ànd ca sëriñ bi nee na loolu ndaw lu bëgg lu baax du ko def kon loolu mooy kàddu yi sëriñ bi yi nga xam ne moo jëm ci ndaw ñi jëm ci mbooleem site yi fi daje ngir taxerlu ay kàddoom nee na moom ab dong rek la bu toog di toog di déglu ndigal fii mu toog ndigal moo fi bàyyi te ndigal moo ko fi yëkkati kon nee na mi ngi jégaluwaat ci kàddu yu baax ñaalem mboolem site internet yi fi daje yëpp ak yokkute ak ak wér ci doole Cheikh Mamadou Fadil nee na màggal gi ñu ngi koy ñaan suñu borom yàlla bu mu doon suñu mujjanteelu màggal nee na yàlla nañ ko màggal ay téeméeri at yu tegal mu ànd ak fekke ak tal ak xéewalu yaatu ñoo ngi jégalu ci kàddu yu baax su ko defee am na ay jëm yu fi ñëw doon siyaare sëriñ bi bëgg yëkkati ay kàddu ci jëmmi sëriñ bi sëriñ Talla Kane moom Cheikh Abdoul Karim Mbacke mi ngi nii toog doog si te ñàkkul mu sànni kenn ku ne xam ko ci woy ay bind ay woyu neex di woy sëñ Abdou Karim ak ak njabootam rawatina Serigne Modou Mbacké mii toog euh, ñu ngi koy ziare waat moom bu baax di ziare tamit Serigne Moustapha mii yëkkati kàddoom bay doo ko daaneel ñu ngi lay jaajëfal baax a baax ci turu Serigne bi ni nga ko waxee rek noonu la ku fàtte la la fal falee ko day yomb ci yow te li nga wax rek noonu la demee kon na nga góorgóorluwaat bu baax te te jàppaat ci Serigne bi rek te yaa ko wax de waxuma ko. yaa ne moo fal kon na nga góorgóorlu ndegam moo la fal nag na nga na xam ne moo fal te jàpp ci moom kon ñu ngi jégalukat baax kon ñu ngi jaajëfal ñëpp rek su ko defee am na jëmmi tey daje ñu leen di wooye euh, jeunesse makaarimul axlaax ñi teew fii doon siyaare sëriñ bi ñu wax leen ñu sànni ay kàddu bu noppee taala barkeelu xam naa sëñ Galas Mbàkke fii la jëm si ci bërëb bi ku ko mën a teewee tamit ba mu teew dana ci am solo euh, seen Alioune Badara tamit bokk ci njabootu Chérif Adrame Aydara war na ay kaddu waaye buñ suñu dem kaddu yooyu mu toog ba Serigne Gallas Mbacké ñëw dina ci am solo kon ñu jébbal kaddu yi waa jeunesse Makarim Akhlaq ñu am ay kaddu yu ñu jotale seen diggante sëriñ bi su noppee ñu wëyal bisimilah.